السلام عليكم ورحمة الله بكي نقول لنا يدي لنا زيار لنا بلو حق برم سبحانه وتعالى بولين جغل حديث تايب دفع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود صحيح الجامعة ينتبه صلى الله عليه وسلم دفع وقت حديث بنا نيني دمبليكو أكنبو تبغيني دوخ آجو ndax képp ku am xéewal rek am na ko ko iññaane xadis bi mu ngi ci saxiixul jaamic ko defee jullit bi euh, lépp lu muy dox ci yitte woo xamante ni muy doxla la euh, mu bañ di feeñal lépp loolu yonent sallallahu alayhi wasallam daf ko jàngale euh, mënoon ñàkk mu nëbb lépp waaye mu bañ a feeñal lépp lépp amit waruñu koo xam ndax ku ñu xam sa lépp rek sa lépp weeru ci mbedd mi beneen biit boo dee dox loo xamante ni yiw la wala nga bëgg a taxawal loo xam ni yiw la luy jëmale eh, nit ñi kanam la luy lu lay jëmale sa bopp kanam la luy jëmale diine ji kanam la dox doxinu kàkkatar da ciy am solo na am na ñoo xamante ne ay saay-saay lay yoo xam ne ñu ngi ci suuf bés buñ ko yëgee dañ na tegal ndëgg sarax ngir eh, yéene wu sell woowu du antu loolu rek jar na nëbb ko moo tax naan jullit dafa war a dafa dafa war doon koo xamante ne ku saris la maanaam dafa war di bàyyi xel lépp loolu la yonantu sallallahu alayhi wa sallam jàngale te it noonu la ñuy doxalee ci lislaam ci politique yi ñuy taxawal ba taxawal li ñuy taxawal ci ay stratégie ba noonu lislaam yi xëy gis diine ji màgg-màggaay goo xamante ni kenn mënatu ko te amatul frontière waaw loola ca la bokk ko defee loolu gànnaay la ci jullit bi incha allahu taala والأمور لتنك حديث أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته